dal leen ak jàmm ñu xëy tàqaat yi yéeni na ne kaay bi nag dalal ñi nga xamante ni seeni xam-xam dafa màcc naka ci wàllum koom naka ci kaay bi xëy na koo tàqan yi ci xëtam bu njëkk nag ñu dikki nag ci Le Soleil yéeni kaay dikkaat na naka ci wàllum mbay mi salinisation ak inondation appauvrissement des sols maanaam jafat si sol yi naka di suuf si yéenekaay bi ne 34 pour cent ci teer yi nag Sénégal yàqu nañu yàqit nag maanaam téeméer boo jël nag suuf soosé nag yu bëri nag yàqu suuf si nag inondation yi di mbënd mi nag ak li nga xamante si moo voiture de fonction yi Macky nag na le frein frein na lépp nag ndax nee daal état bu Sénégal dafay loué ji ay oto ak ngir gouvernement ak cabinet présidentiel bi ndax dootuñ fi jënd

ne session duñu voté benn yoon budget boo xamante si dafay indi ab xiini mii ci réew mi Vox Populi gannaaw téléphone yi ak logement yi naka daal dinaay fere ñi nga xamante moo di oto ak véhicule yi nga xamante moo ñeel wàllum administration bi nee nag fi naka dañuy luyee waaye naka di jënd ay oto yoo xamante daanaka lañ leen di doyee naka gisuñu ko naka loolu moom daf fi buy jeex Walf Quotidien xëy jiix nag ba gis ki nga xamante moo di Youssou Touré Cissé Lo Mor Ngom Benoît Sam naka ñooñu nga xamante daanaka yéenekaay bi na ñoo nekkoon ay i fay ndax kenn gisatul leen kenn déggatul leen enquête yéenekaay xëy naka dikkaat naka ci waa gauche ñoom naka si jamono ji naka ci danger bu rëy la nekk na yéenekaay bi ne depuis ba nga xamante ni si nañu nguur gi naka kii di PS AFP ak LD AJT ak PIT ñoom ñëpp nag fi mu ñoo ngi ci coma ñoo ngi nelaw yeewooguñu nag ndax booba ak léegi kenn déggul moom dikkaat na ci li nga xamante ni si moo di cofe ca Kédougou nag ak société minière yi nga xamante ni si daanaka ñoo fa tampe gone yi nga xamante nag ñoo dëkkee ci boobule ne dañ leen a fàtte ci lépp nag lu ñu mel nag moo tax ñu ni naka a liggéey ndax mënuñu naka daay dàkk ci nii wala ci na lee fu laay jaay daxaar de mbaama mos jeexal ko ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg